waaw ñu ngi lay fay Pape Ndiir ah, ndox mi kat gaa yi gis nga leen ñoom ba ñëwee gas canalisation bi fii sa lañu toj tali bi gis nga suuf su ñu mel fii dafa mel ni mosul am tali te tali bu wow ko nga fi nekkoon alors bañ ko tojee ba léegi nag gis nga ko canal yeex suuf seex yëpp jaxasoo kenn mënu fi noyyi ndox mi ci douche lay jógee léeg côté tali ba lay jógee di ñëw. ñoom xam nañ ko ñu nga nee di gas ñee di gas fële ñoo doon gas fii tey tey fii gas nañ ko lu ëpp ñetti yoon trois fois gas nañ ko ñu nga nee di gas fee démb gas nañ koñ bii lu mat deux fois fois gas nañ ko donc ñoom daal doo comprendre quoi tali bi ñu toj la fii tali bu wow moo fi nekkoon de tali bu amul benn problème tali bi dafa wowoon koŋ ñoom ñëw ñëw toj ko suuf si jaxasoo léegi gis nga trottoir yi nii trottoir yi yëpp ci tali bi la ne woon léegi nag moo am suuf ndox mi duus si génn fi dootoo comprendre quoi waaw mais c'est-à-dire que garage avons un garage bi ci mais nous mi daf ñuy problème yu bari client clients yu bari sax dañu daw client problème parce que pour nous, dugg avons rek ñu ngi gas fii ñu ngi gas côté nous camion gaz, donc nous comprendre quoi c'est comme ça. non maire bee la ko gën xam Cheikh moo la gën a xam fii de secteur bi Cheikh Gueye la ko gën a xam fii bu masee am euh, daan na am tuuti salte tuuti rek parce que ndox mi pant bi fii ndox mi bu daan ñëw dara indaale salte bi bu ko defee ñu woo Cheikh Gueye mu indi tracteur dindi ko ba mu set mais tali bu wow ko fi nekkoon lii fi ne yëpp Cheikh Gueye xam na ko moom dëgg neex yàlla xam na ko mais bu nawet mosee ñëw moom dana fexe ba bu nawet bi bëgg a jeex mu indi tracteur indi camion tonn suuf si ndox mi ndaale fii yëpp bu ko defee talib day woo koŋ waa mais ñu gaaw rek parce que nit ñi sonn nañu ah ñu gaaw rek ñu gaaw rek parce que situation bi moom dafa métti trop dafa métti trop ñoom depuis ñu commencé ko gas ñu ngi gas di wax mais affaire bi avancé wul demul dikkul pour ñun dafa mel dafa taxaw quoi